yow dañu la ñëw fekk la fi nga bokk ci organisation bi waaw. waaw en fait ñun dañ ñëw euh, en tant que euh, euh, agent sécurité parce que bon defuñu sécurité mais on est des bon dañ ñëw comme ni nga ko defee Wakaam daf ko si yeneen site religieux yi ñëw appuyer leen en logistique si caméra lañ yor donc buñ ñëwee dañuy xool lieu bi ne donc boo xoolee laaj na ñu sécuriser ko parce que dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw mais bokkuñu si dañ siy rax rek dañuy ñëw di tafu ñi ak yeneen ak yeneen buxante yi si am wala ñu si danger bon dañuy interpeller euh, ki nga xam ne mooy sécurité sécurité site bi donc day ñëw toog xam naa si kanam dinañ dem ñu wan leen ko bu ñëwee toog xool écran bi bu gisee fépp foo xam ne am na danger wala mu am vol moom mu jóg interpellé wala moo agent bi yi nga xam ne ñoo tax si biir ñu ñëw bu ñëwee donc def intervention en collaboration ak euh, waa gendarmerie donc ñu ñu ñu jël ñi nga xam ne ñooy dafa euh, kii malfaiteur yi. waaw ah, dañu dañu seetlu ne caméra de surveillance yi ren rek lañ ko fi gis. noo en fait du ren euh, daaw daanaka amoon na mais boo xoolee si bee bi la woon parce que dafa am xale yoo xam ne dañu doon dem si géej bi léegi bu fekkee gis nañ jol nañ caméra bi tegoon ko si bee mais laay bi moo tax comme dafa xawoon kii te day yàq appareil yi moo tax bii paa ñu déplacé ko moo nekk ne la déplacé ko fële teg ko foofu pour juste éviter euh, mu yàqu rek moo tax quoi. mais daal ça fait deux ans ñu fi ñëw ou bien trois ans ñu ngi fi ñëw xaw leen jàppale touristes yi affaire bi. ren aussi tamit gis nañ ni càcc gi ñuy wax réclamer amu fi. waaw parce que gis nga affiche yi ni nga ko tafee parce que bon ñun suñu rol mooy du siyaade leen d' abord wax ne fii maytu leen fii ñu aar nañ ko d' abord bu ko defee ñi ñu duñ jéem a sàcc sax duñ ko jéem parce que suñu rôle nekkul jouer police rôle police mais ñu ne leen alt taxaw leen fii am na ñu leen di xool loolu moo njëkk abord avant ñu leen di jàpp. loolu mooy suñu rôle moo tax bi ñu defee affiche teg teg kii yi donc am na loo xam ne xaw na ko wàññi tuuti parce que biñ ñu daaw am na ñu jàppoon donc ren xëy na ñooñu biñ leen jàppee daaw ren dinañ ñëw maytu loolu daal moo tax ñu safar mais ñi leen di jàpp dañ leen di téye ba ba appel bi jeex ñu libéré leen wala da ngeen di yóbbu police. waaw comme li wax rek ñun loolu suñu ressort duñu ay policier comme comme ki nga xam ne mooy responsable mooy chef sécurité bi dafay toog di seetaan ñun image yi di visionné ñun image moom buñ kenn rek moom daf koy day oo ñi mu nekkal ñoom ñu dem interpeller la gaa après dem dem euh, gis waa gendarmerie ñu jébal leen ko après ñoo toogaat kon ni ñu xam suite bi ni muy toll parce que ressort gendarmerie la waa sécurité. ñu ngi lay sant. Euh, gis nañu ren ci côté bi am na caméra de surveillance ñëpp daal teg ngeen ko ci yoon yéen sécurité gàll gàcce ngalam. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yow yéen lañ delloo njukkal lépp le mérite vous revient. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi fii ci xabru maam Limaamu Laay Euh, radiallahu taala and ñu ngi ci fekk nag ci ginnaaw xabru bi benn baas fekk ci ñiy toog ñi nga xamante ni ñoom lañu toogal euh, ñuy gérer sécurité surveillance bi la ok ñuy gérer sécurité surveillance bi maanaam ñu ngi toog jàkkaarloo ak seen i écran di surveiller di xool maanaam di saytu lépp loo xamante ne ni lu baax la lépp loo xamante ni tamit lu baaxul la ñu siñaale ko gendarme yi dafa mel ni ñoom ak ñu waa gendarme ñoom ñooy liggéey wala ñoom ak force de l'ordre yi ñu gérer sécurité bi ñoo nekk di liggéey sëñ bi ñu ngi lay ziar di la sant di la gërëm fi ñu la fekk nii mooy fan. ah yaa ngeen ma fekk si xabru maam Limaamu Laay euh, foofu ngeen ma fekk. ñu ngi la fekk nga jàkkaarloo ay écran di suivre li nga xamante ne actualité bi nga xam ne mu ngi am ci bas bi ci tante bi fële euh, nga toog fii. lan moo waral nga toog ba pare di surveiller loolu. bon salaamaaleykum ginnaaw bi ñuy toogee ba bi nga ginnaaw bi ñuy installé euh, système bi ba pare léegi dañuy toog maanaam di ko superviser daal donc euh, suñu rôle boo xoolee genre mën nañu wax ne prévention la daal ak dissuasion donc euh, dañuy installé caméra yi di xool bu ñu gisee loo xam ne dafa sensible ñu signaler ko responsable sécurité bi après ñoom ñu ñoom ñu xool ñoom nan la ñuy def daal. kon instant bi su ma la déggee lépp activité boo xamante ne mu ngi am ci biti yéen yéen a koy am fii ci seen i ñaari écran yi nga xam ne yéen ngeen jàkkaarloo ak moom à travers ci seen i caméra de surveillance yi nga xam ne samp ngeen ko ci tente bi ak ci entour bi yëpp euh, lii lu bees la wala mu ngi doog am. bon mën nañu wax ne lu bees la parce que ça fait trois ans ñu ngi koy def euh, ñu ngi ñëw si appel bi di leen jàppale si wàllu sécurité électronique donc euh, caméra yi zone sensible bi rek lay jël. Euh, zone yi nga xam ne ñoom ñoo ñu définir ne zone yi dafa sensible ñun zone yooyu lañuy ñuy jéem sécuriser ak caméra yoo xam ne motorisé la maanaam dafay tourner sur 360 ak 100 180 degré daal donc. defoon ngeen ko daaw daaw bi ngeen ci paree def seen i bilan euh, euh, seen statistique daaw ci ci lu mu tolloon ci xayma ñi nga xamante ne nii parce que seetlu nañ jotaay bu nekk ñiy gàmm ak ñiy ras dem bokkul jotaay bu nekk fu nit ñi bëri rek donc lu ci mel ni càcc gi dafay faral di bëri tafu xam nga da ngay dem léeg-léeg da nga dëkk ak nit mu dem euh, ci daje yi mel nii ñëw ne la sama téléphone dañ koo sàcceek ak yooyu noonu daw naka ngeen defee naka ngeen ci tolloon ak loolu. bon ñun euh, bu ñu gannaaw bu ñu ñëwee ba installer système bi ba superviser ko bu ñu paree ñun dañ leen di bàyyil données yi léegi ñoom ñoo koy gérer mais d'après information yi ñu am seen responsable sécurité nee na euh, cas de vol yi ak kii njombe yi mu ngi. mu ngi wàññeeku ndànk na parce que boo gisee caméra yi déjà muy tourner bu fekkee ne da nga ñëw wax intention pour pour def loo xamante ne naka sudul noonu di na bi dina la xaw a tiital quoi dissuader te ñun loolu loolu rôle boobu rek lañ si lañ siy séntu quoi waaw. mais bi nga toogee fii euh, démb ba léegi bi ngeen installé daanaka bi appel bi commencé ba léegi euh, amul amulagu leen ci benn cas bu mel noonu. bon cas yi ñoom ñoom ñoo ñuy signaler des fois bu ñu cibler ay ay quelques personnes bon ñu wax ñu pour ñu suivre nit kooku après ñun suñu rôle mooy ñu suivre nit kooku ensuite après ñoom ñooy ñoom ñooy agir comme parce que ñun foofu lañ yem ko amali si des wàllu boo xoolee ñoom la ak ak les gendarmes ak la police donc yéen daal da ngeen lëkkaloo ak waa police di leen boole maanaam yéen daal boole ngeen def da di gis euh, comme ni ngay jàkkaarloog ci écran yi bi gis ngeen tant bi tey soo gisoon kenn kuy taf benn waaye nak ngay def da ngay jékki-jékki woote wala dangay yor téléphone boo xam ne da nga koy ngay da nga koy da nga koy signalé waa gendarmerie dem alerté leen ñu dem jàpp. voilà ñoom seen dispositif de sécurité dañ nekk en rapport direct avec les gendarmes donc ñun bu ñu gisee loo xam ne dafa suspect. donc dañ leen koy dañ leen koy signaler après ñoom ñu ñëw ñoom am nañ ay système yoo xam ne ñoom lañ def ay pointage un peu partout léegi dinañ mën a localiser waa jooju par exemple daaw am na ay cas yoo xamante ne biñ ko biñ biñ ko gisee biñ leen ko signaler day am benn dispositif de pointage boo xam ne day am dañuy ñëw rek jël waa rek yóbbu ko buñ ko yóbboo def après gendarme yi def enquête bu fekkee ne c'est euh, fausse alerte la ñu bàyyi ko bu fekkee ne suspect la nag ñu ñu jéem ko maintenir si. ok en même temps gendarmerie dañu nekkaale ci biir nit ñi def ay point fu nekk ñu taxaw fa au cas où de cas bu ngeen ko signalé ñoom day fekk rek am na keneen ko fa pointé ba tare waaw ni ma ko waxee ñoom seen euh, maanaam seen dispositif de sécurité xam nga affaire gendarmerie yooyu dafa xaw a waaw ñoom ñoo ñoom ñoo gën a maîtriser seen euh, ñun ñun côté électronique bi rek waaw. en tout cas ñu ngi leen di féliciter di leen encourager ci seen liggéey ju rafet di xamante ne leen koy def parce que sécurité dafa baax ci réew waxuma nag. jotaay yu mel nii rendez-vous yu mel nii et puis euh, ndaje gu mel nii xam nga fexe ba càcc gi wàññeeku nit ñi di ñëw di di di di siyaar si ñaan seeni soxla ñëw ci jàmm dem ci jàmm te yéen yéen a ngi joué lu rôle bu am importance ci gàmmu donc tey seen troisième année donc yàlla na fi law et puis ñu ngi leen di encouragé di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup asalaamaaleykum Aliou Touré di responsable sécurité jàmmalaay sécurité euh, Aliou maa ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi lay fay sëñ bi. donc donc dañu ñëw fekk la fii euh, ngay responsable li nga xamante ne ñoo gérer wàllu kii kii euh, kaaraange gi. Mhm. Euh, tey lan moo nekkoon seen position seen taxawaay. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli seenante bu tedd bi. di wax ne tamit sans sécurité dara wóorul même julli sax dafay am sécurité donc li may mën a wax daal mooy ñun ñu ngi fi di gérer. quelles que le les ak lu fi mën a am ñu ngi jéem a xool nu ñu mën a gérer sécurité bi sécurité du doy ñëpp a ko wax waaye tamit grâce a eux ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy suñuy nataangoo ci liggéey bi di ñu teg loxo nag at mu ne te nga xam ne fa dëgg yàlla bi ñu ñëwee teg ñu loxo ba léegi gis nañ ne kii wàññeeku na wàllu càcce geek wàllu tafu geek wàllu pédophilie bi wàññeeku na ndax taux bi élevé woon na auparavant ñetti at élevé woon na mais léegi dafa réduire de telle sorte que fu mu toll nii pour nga téye loxo sàcc sax problème na et loolu lañ leen koy santé ndax c'est grâce à eux ñu mën a am loolu te loolu daal laa xam ne moom li nga xam ne mooy la principale des choses mooy li nga xam ne mooy wàllu sécurité ak lu mu mën a am am am am loolu moom lu mu ñàkk la te du doy bu dee dix mille éléments tamit du doy si sécurité ñëpp xam nañ loolu loolu daal laa xam ne loolu am na kon tey actuellement nii mën nañu wax ci xayma ci ci ci xayma li ngeen génnee taxaw seen taxawaay ci ci ci sécurité bi waaw lu ñu génn tamit euh, ndax ñun dañu fi mu ne dañuy nombre bi moom na daanaka nombre bi passé na parce deux cent trois cent éléments à trois cent éléments yoo nga xam ne dañ ko répartir dans différentes cellules am na cellule boo nga xam ne cuisine la tamit foofu sécurité am na fa ak wàllu fii nga xam ne mooy mausolée ak fi nga xam ne wàllu convoi ak wàllu yi nga xam ne mooy patrouille te yooyu dafa am même au niveau de la plage am nañ fa ñu nga xam ne tamit ñoom ñooy taxaw ci côté boobu di ñu si jàppale kon loolu déjà boo xoolee en grosso bu ñu amee lu tolloo ko 300 éléments jàpp 310 loolu ñoom ñoo fi nekk gum ñoo fi nekk Mbawar. kon mën ñu gis jàpp ne depuis euh, ñetti at yeneen koy def boobu ba léegi donc ci biir ñetti at yi boobu ba léegi ngeen seen taxawaay ak yooyu euh, comme ni nga ko waxee sànq ñu gis ne aussi tamit sécurité bi wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw insécurité bi moom wàññeeku na franchement parlant parce que d'ici 2004 bi 2004 ba léegi auparavant kon am nañ nga xam ne progressé nañ si kanam. ndax boo xoolee li nga xam ne mooy sécurité technologique loolu am na solo ndax loolu moo ñuy dimbali de la ñun tamit ñu mën a féex si benn côté ndax du ñu daw di dàqi sàcc buñ dul jàpp fu ne dañuy toog sur place ñoom ñu orienté ñu ñu am ku ñu am cible ñu dem jàpp ko scientifiquement ndànk ko jox ko jébbal ko gendarmerie parce que gendarmerie tamit am nañ si part responsabilité ndax ñoom ñooy taxaw si benn boor ñun dañuy jàpp ñoom foofu ñu ñuy am ñun foofu la ñuy continuer mais du ñu jàpp di yóbbu kenn dañuy jàpp jébbal la gendarmerie gendarmerie def liggéeyam mais ñun foofu sur foofu lañ toll ci cadre boobu kon yéen da ngeen di jàpp rek jox gendarmerie ñu jàpp ne yéen ak gendarmerie yéenay liggéey. ñooy liggéey ndax am consigne leer yu ñu jox ndax saa sans eux du dem ndax ñoom force de l'ordre la ñoom ci boppam ñoom ñoom moom fii ak fu mu mën a am ñoo fi ñun ñooy xam ñi nga xam ne ñooy pèlerin yi a wax ak ñoom ñooy a composer ak sëriñ ñoom xamuñu sëriñ si ñenn ñi xam nañ mais ñun tamit ñoom ñun ñoo leen ko gën a xam kon loolu tamit ñu ngi ciy taxaw te ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo ndax ñoom tamit yombal nañu liggéey bi ndax mënoon nañoo toog seetaan ne ñoom ay gendarme la ñoom ñu yem ñu yem leen fi yem leen fii mais boo gisee chaque élément sécuritaire am na kuy benn gendarme bu muy àndal wala deux gendarmes kon kooku déjà liggéey bi kon ñu ngi koy panaché de telle sorte que ne ñëpp yëkk si seen bopp ndax am na lu ñu leen ragale te ñun mën nañu bañ a ragal loolu tamit am na si solo quoi waaw. depuis appel bi commencé ba léegi mën nañu xayma am ci xayma yoo xamante jàpp ngeen am ngeen ci ay cas yu mel noonu. ah am nañ ci ay cas am nañ ci cas yu nga xam ne bon ñi nga xam ne ay fausse identité la ñuy joxe te loolu garaaw la. c'est c'est c'est c'est très grave loolu insécurité la indi da ngay wax ne diw nga tudd tey bu ñu xoolee sa pièce d'identité loolu new si te loolu bi ñu ci jógee ba léegi jusqu'à présent depuis deux mille euh, depuis quatre-vingt deux mille deux mille dix-sept jàpp deux mille dix-huit jàpp deux mille dix-neuf sunu gars yi bi ñuy wax fa dëgg yàlla euh, on a fait un très grand pas pas bu rëy ba nga xam ne ñun fu mu toll nii ñun euh, amatuñu problème si côté boobu déjà ñu on a du mal à attraper benn sàcc te daaw daawaati jéeg métti woon na suñu côté ay six ba sept am na bonn boo xam ne élevé na par bay ay treize waaw treize ñoo nga xam ne tamit ay ñenn ñi ay pédophile lañ ñenn ñi dañuy jóg pour caaxaan ñenn ñi dañuy jóg pour troubler la quiétude des gens loolu bi ñu si taxawee nag loolu wax dëgg fa yàlla ñoom bi ñëwee am nañ si li nga xam lañ soxla wax yàlla waaw macha allah. ay pédophile maanaam ci ci ci bi gars yeeg yooyu. ñu sàkku xale ci waaw ñu rek. yaa ma a xam ñi yàkkataan ak yooyu demee noonu. lu nga xam ne yow yellawul barab bi. yellawul barab bi te ñun li nga xam ne mooy la principale des choses li nga xam ne moo ñu gën a ëppal solo mooy entretien bi. entretien et social. dañ ne sécurité mais dafa am sécurité entretien et social boo demee si ginnaaw fii suñu cuisine mu nga fa dañuy togg jox pèlerin yi te ñu ngi ñaan muy gën a yokk ndax mu ngi yokk li pèlerin yi gën a yokk tamit togg yi mu gën a yokk te nag dañ si sant yàlla bu baax julli seenante bu tedd ba mais li nga xam ne mooy loolu social la mais li nga xam ne mooy entretien alentour bi nga xam ne mooy mosole bi jàpp alentour bi yëpp après ñoom ñii xale yi ñoom ñooy jël seen i saako di for mbalit mbalit par mbalit mbalit par ba mu set ba mu comme ñu jël jébbal ko ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ONAS ñu jàllale affaire yi noonu daal bokk na suñu liggéey daal waaw gis nañu aussi tamit yéen nga xam ne yéenay gérer sécurité bi daanaka bi affaire yi tàmbalee beeg yéen a ngi fi mm-hmm. ñu gis ne à chaque appel nit ñi dañuy bëri dañuy mm-hmm. fees mm-hmm. car macha allah fu nekk la nit di jógee euh, étranger yi nga xam ne dëkkuñu Sénégal seen taxawaay ci ñooñu ñu ci mel ni Gambien yi Malien yi Guinée yi Nigérien yi waaw sant yàlla rek sant yàlla rek ndax euh, wote bi yàlla euh, médd yàlla yi dañuy ñëw loolu mënuñu si dara waaye tamit il faut être vigilant te vigilance boobu ñu ngi fi curiosité bi mu ngi fi parce que duñ la may dara loo xam ne luy mën a yàq xew bi te incha allah rabbi daal lool nañ ci gën a def ay jéego gën ci taxaw ndax tamit gambien tamit ot la gan la nigérien got ot kii la gan la te mënoo xam ne kii gan la kii sénégalais la wala kii nigérien wala kii burkinabé ndax ñun ñëpp ñoo yem ñoo niroo waaye tamit ni ngay ñëwee la ñuy xam ne yow mii ban la mooy say intention parce que am na ñoo xam ne def nañ ay def nañ formation sécurité xam nañ ci am nañ si lu nga xam ne notion yu doy waar yu mucc ayib kon kuy ñëw nañ xam ne kii lan la bëgg ak lu mu noor kon loolu tamit yàlla dimbali nañu si daal dimbali nañu si. maa ngi lay sant di la gërëm di la remercier merci beaucoup monsieur le secrétaire jërëjëf. maa ngi lay jaajëfal maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal.